corruption bi nekk ci réew mi amul secteur bu mu bàyyi waaye loolu ndax sa bopp loo xam ne ñi ngi ko doon dérouler en temps réel àdduna bi yëpp di ko gis <laughs> nga xëy di bind say titre na continuer ci loolu waaye ñun fi ñu teg suñu tànk duñ ci teggi dara moo tax keroog nee nañ leen c'était le premier acte dañuy wéyal liggéey bi moo tax dinañu développer plan d'action boo xam ne dina am ñaar wala ñett ci action actions yu ñuy wax tey la ce des au fur et ba ca njëkk mooy jàpp nañu organiser une très grande manifestation le 29 juin incha allah ñu bëri ci militants yeeg sympathisants yi yàkkamti woon nañ ba bëgg ñu defaat ko ci nu mu gën a gaawee ñii àjjuma bii lañu bëggoon ñu def ko bi ñu waxtaanee. la ci génn mooy comme réew mi am na lu fi war a xew du vingt 24 au 27 mooy centenaire u Hajj Malick si bi nga xam ne dañ koy célébrer ñu ne pour ormal loolu ci diggante boobu duñu organiser ndax tey la lundi boo déposé woon tey lundi pour nga am 3 jours francs yi mardi mercredi jeudi la vendredi rek nga mën a commencer organiser te vendredi mooy le 24. looloo tax ñu ne daañ ko teggi ba loolu wees ñu jàpp le 29 waaye loolu nag dinañu permettre fii ak le 29 bu soobee yàlla dinañu waajal Macky dina xam ni le 17 du woon dara di 17 du woon dara le 29 bu soobee yàlla dinañu organiser manifestation te dinañ ko organiser ci anam goo xam ne. naam ndakaaru am na solo trop te moom la ñuy concentrer suñu effort yu gën a bëri waaye nañ ko organiser dans un pôle au sud dans un pôle au nord et peut-être dans d'autres pôles yoo xam ne ñu ngi koy liggéey daañu manifester de te dootul taxaw le 29 li may bëgg wax Macky Sall rek mooy na waajal parce que ñun ñi ñëpp waaye man damay wax sama tur man mii Ousmane Sonko le 29 ñaar moo mun a am Macky dina ma jàpp wala mu faagagal ma parce que gannaaw yàlla gisuma lu ma mën a tere génn le 29 incha allah bii dafa am nu mu demee woon ak li ñu ci doon def ñu nit ki stratégie waaye le 29 na pare ni dinañu jàpp wala ñu mu faagagal bu jàppee ni moom moom réew mi ndax na boppam. mane it loolu mooy li ñuy yéene le 29 mais ci diggante bi moo d'ordre bi ñuy lancé wax ko militants yi sympathisants yi ak sénégal yëpp mooy à tout moment nañu organiser des manifestations spontanées bu dee fii ñu toll nii dafa bëgg a instrumentaliser justice pour teg loxo ci ay nit condamner leen ci loo xam ne jaaduwut nañu organiser de manière spontanée guddi comme bëccëg te ma wax ko fii nag man maay jox man maa ko wax fii joxe ndigal wala stratégie gis nga manifestation bu sénégalais yi génnee massivement te manifestation bi yàgg gisuma force de l'ordre bu ko mën a téye parce que ay nit kese lañu bu ñu xëyee suba ñu takkal leen seen yooyu ñu commencé 4 heures du matin ku ci egg 5 heures mënatoo sax dox. bay daw na sénégalais yi organiser wu quartier par quartier commune par commune département par département ñu génn def manifestation massive ñaari fan buñ ko defee nguuru Macky Sall sax daanum xaj na ci loolu mooy wax ji fi mu toll nii kon le 29 manifestation tey jii lañuy ñuy déposé bu si kanamee tuuti lettre baa ngi fii. demandé wuñu autorisation lettre d'information la ñu def président Khalifa Sall mi moo ko signé ak man ak yum mi dañ leen di informer jeex na takk quelque soit décision bu ñu jël dañuy manifester bu soobee yàlla loolu dama bëgg mu leer benn yoon.